ñetteelu doomu aadama bu daal di ñàkk bakkanam ci manifestation yi ñuy amal ci euh, biir réew mi euh, kile nag mi ngi tudd Landing Jeeju moom bi la nag ma nga euh, dëkk ca diwaanu Sigicoor ay atam toll ci fukk ak juróom-ñett maanaam 18 ans la daal di am mu nekk élève lycée ca bo ca diwaanu Sigicoor gannaaw ba nga xamante ne nag manifestation yi démb ci guddi gi la doon dañ ko doon amal foofee ñu daal di koy dóor bal ci bopp moom nag deewu ci saa ambulance yi yóbboon nañ ko ci hôpital régional ba daal di nekk ca diwaanu euh, Ziguinchor waaye nag ci ab opération bu raté rek tax nag mu daal di euh, daal di succombé mu daal di mujj daal di ñàkk bakkanam ci loolee nag ca ndaw ña daal di euh, gën a mer daal di dem fekk seen bu bu got daal di koy taal mu jeex tàkk mu daal di nekk ab ñetteelu doomu aadama bu daal di ñàkk bakkanam ci manifestation weekend bi la ñu daal di nekk gannaaw ba nga xamante ne nag reporté nañ élection présidentielle mu nekk ab coup d'état constitutionnel ba nga xamante ne nag ndawu Sénégal yi nee nañ duñ ko daal di euh, dégg euh, ci loolee nag moom mi la di Landing di Diédhiou ci la daal di euh, ñàkkee bakkanam gannaaw ba nga xamante ne nag ca diwaanu Saint-Louis tamit ab étudiant daal di fay ñàkk bakkanam ca Pikine tamit ginnaaw raay ki nga xamante ne moom mooy wuyoo Modou Gueye ay atam tollu ci ñaar fukk ak ñett moom itamit ñu daal di koy faat mu daal di nekk nag ñaareelu moor ñetteelu moor ba nag ca diwaanu Ziguinchor la mu nekk nag ab la nga xamante ne rek mooy manifestation yu ñu nemmi nekku ci ah, biir réew mi jamono ji ñett ci ay doomu aadama ñoo daal di ñàkk seen bakkan waaye démb nag sa diwaanu Sigicoor tamit ah, nemmeeku nañ fa ñaari doomu aadama yoo xam ne am nañ ay gaañu gaañu yu métti métti jamono ji la nag ña nga ca réanimation maanaam ña nga ca diggante dund ak ah, dee danañ leen toppal information bi ni mel waaye nag ñetteelu doomu aadama ba mu ngi wuyoo ci turu landing jéeju ay atam toll ci fukk ak juróom-ñett mu nekk élève ca benn lycée ba nekk foofu ci diwaanu Sigicoor